يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما سفي المصحب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قمته وصورا ثم صلاة الله وسلام على الذي مني له الأخلام bu ñëwee ci ganek addunaam moom Sëñ Mor foofu nag ñuy wax ne maanaam eh, jëmi siira moom dafa baaxoo maanaam ixtilaaf muy werante ma nga tàmbalee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax buñ demee ci téere siire yi danañ fekk ne ñenn ñi dañoo wax ne bisub altine la gane àddina ñenn ñi wax ne bisub ajjuma ba ci weer wi sax am na ñoo xamante ni nii wuute nañ ci waaye ne wax ji gën a wóoru mooy ci weeru rabiixil awwal wi muy reewu mu weeru gàmm wi kon jëmmi maanaam siira ci boppam moo baaxoo ixtilaaf waaw loolu moom euh, ñu bàyyiloo ko xel waaye nag dinañ ci wax li ñu ci suñ borom xamal ci jamono bi ñu tollu ba beneen yoon incha allahu taala moom nag sëñ Mor Sànqe moom la tudd baayam di sëriñ Deenu Ramata tuddee ko sëriñ moor Anta Sëli Mbàkke sëriñ Mor Anta Sëli Mbàkke moom la ko way juróom tuddee loolu nag day wane ne kon ñoom amoon nañu relation ba tax maanaam mu tuddee ko ko euh, moom nag kon sëñ Mor Anta Sali la tudd ay way juram nag mooy euh, sëriñ deenu ramata sëriñ deenu ramata saa kodde ma umma saa kodde ma umma euh, ma sànqe fa jóob saa kodde saa kodde ma umma Eh, sëriñ daanu ramata saakoo dema umma ma sànq fa jóg su ko defee muy mbokkum sëriñ Touba ñu bokk ci ak mbokk goo xam ne moom la leen yàlla boole waaye ginnaaw loolu lépp da koo jaay jënde ko ak taalibe ndax bu ñëwee ci ni mbokk ak sëriñ ku nekk xam na ne daanu maam sànqe mooy seen maam ñoom ñaar ñëpp mook sëriñ Touba ndax comme noonu ñu ko waxee daanu maam sànqe ma sànqe fa jóg saakoo dema umma Euh, sëriñ deenu ramata sëriñ Mor Sànq foofu la càllaloo boo demee ci wàlluk sëriñ bi sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu boo jëlee euh, deenu maam sànqe danga ciy teg euh, ku ñuy wax soxna daaro sànq teg ci ndumbe ñaŋ teg ci maam astawaalo ak soxna jaara busa ak seexul xadim kon ñoom ñaar ay mbokk lañ ñi ngi bokk maanam maam deenu sànqe muy Eh, deenu maam Sànqe ñu gën koo xam ci deenu maam Sànqe kon moom muy mbokkum Serigne Touba moom nag mi ngi ganee àddina fële ca Cànqe Jolof loola nee nañu mi ngi nekk 1890 1890 ci la ganee àddina foofee ca Cànqe Cànqe Jolof muy mbokkum Serigne Touba comme ni ma ko waxee Serigne Touba mi nga xamante ni nii Euh, lépp lu waaye am fii ci lu baax rek ci moom nga koy ndamoo ci moom nga koy ndamoo ndax moom moo doon buntu bu yërmande yàlla ci kaw suuf ci jamono bi mu fi nekkee kon muy mbokkam loolu ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bam ñu bam ñu boolee Serigne Touba ak mbokk euh, doonte it xam nañ na it loolu moom taxut maanaam kenn gën comme ni ko oustaz Mohamed waxee léegi nii waaye loolu féex la ndax maanaam bokk fu baax mi ngi mel ne maanaam tool boobu nga xamante ni nii maam dañ koo euh, bay ruuj ko nga xam ne yow boo ñëwee da ngay daal di ji rek mu baax kon loolu am na solo ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax bam ñu boolee ak Serigne Touba ci ak mbokk di sant yi Serigne Mor mi nga xamante ni nii maanaam moo ñu ci boole di ko ñaanal yërmande yàlla euh, kon moom mi ngi ganee àddina foofee ci cànq jolof ci 1890 baayam di euh, deenu sëriñ deenu ramata baayam di sëriñ deenu ramata waaye juróom bu jigéen nag nee nañu mooy soxna màggat juuf moom la tudd bokk ci ñi nga xam ne dañ daan falu ci siin ci njuufeen googu la bokk ñi daan falu ci siin ci njuufeen googu moom ci la bokk moom soxna màggat juuf ginnaaw nag bi nga xamante ne nii maanaam euh, dem na nag ba mata dal jàng kon Sëñ Mor dafa judd ci famille boo xamante ni nii famille bu baax la famille famille la boo xamante ni nii ñoom lu baax rek lañ xam muy alquranul karim rek ñoom loolu rek lañ lañ daan def jàngale alquran ak bay di dundee kon jàngale alquran ak lekk lu lew képp ñoom moom moom moom moom moom lañ daan def kon muy ñu baax ñu sell kon nag. loolu nag li ñu ciy jàngatee mooy képp koo xamante ni nii maanaam da nga caa bokk ñu leen ñuy tudd kooku di la tudd yow war ngaa fexe ba lañu nekkoon maanaam bu fekkee mënoo caa àgg tamit nga fexe ba maanaam jéem leen a roy roylu ndax boo ko defee suñu borom gàttandu la ndax ku nekk xam na ne waa ashaabul kahfi jàng nañ ci alxuraan na suñu borom jëflantee ak ñoom euh, du ma ci ñëw ji xissa bi ndax dafa gudd te damay bañ waxtu wi waxtu wi kii waa ashaabul kahfi kon képp koo xamante ni da ngaa jéem a jub-jublu rek suñ borom dana la ci fekk si kon loolu maanaam ñu bàyyi ko xel bàyyi xel ne juddoo ci famu famille bu baax am na solo waaye li koy jëmmal nag mooy ñi nga xamante ni jamono bu nekk ña nga xamante ni ni ñoo coy sosoo ñu jël seen tànk maanaam teg ko fa seen maam yooyu tegoon seen tànk loolu rek mooy joxu valeur seen maam yooyu waaye tamit euh, moo moo leen yëkkati ginnaaw nag bi nga xamee ne dem na ba mat dal jàng nee nañu waay juram eh, moo ko jox ku ñuy wax Sëñ Abdu Ndujël Gasama Sëñ Abdu Ndujël Gasama xam nañ ko bu baax ci réew mi moom nag nit ku baax la woon ku sell ndax nee nañu bi mu nekkee fii ci Bilal Mori eh, ci jamonoom tuwaab yi dañ ko fa bëggoon a fal li ñuy tuddee chef de quartier te booba fekk na mu bay ab toolam ba tool ba tool yi ci ñor waaye dane man duma liggéeyal ab tubaab tax maanaam mu gental këram ga gental toolam yooyu doon bëgg a ñor ndax lépp bëgg rek ne ci liggéey nee na moom yàlla rekk lay liggéeyal loolu tegtal la ci nekkoon kooku ku baax la ku sell la ku set wecc ci moom la yàlla na ko suñ boroom dolli yërmane eh, te teg loxo ci njaboot bi moom nag moom moom Sëriñ dund jël moomu nee nañu moom la ko way juróom joxoon gannaaw bi ko way juróom dalalee ndax nee nañ way juróom ci boppam moo ko dalal alxuraan muy sëriñ Deenu Ramata moo ko dalal alxuraan moom ginnaaw bi mu ko dalalee nag la koy dooro yóbbu ci Sëriñ Abdou Ndajël Gassama fële ci eh, mbure nag fa la ko jàngalee alxuraan nee nañu ba mu mokkal mokkal alxuraan ga maanaam am na xissa yu ci juddoo waaye maanaam euh, dañuy bañ waxtaan wi gudd moo tax ndax mokkal ga nee nañu dafa dafa teel a mokkal alxuraan te mokkal ga it nee nañu dafa yéeme woon lool kon fa la jàngee ba mokkal alxuraan nee nañu it ci réew yooyu ci foofu ci Saalum fi la jàngee xam-xam ndax euh, fu mu jàngee xam-xam moom exact waaye moom nekk na koo xamante ni nii maanaam danaan wax ci xam-xam. di ci dugg bu baax a baax ndax gis nañ ci moom luy tegtale ne moom boroom xam-xam la woon moom sëñ Mor ginnaaw nag euh, bi mu jàngee alxuraan jàng xam-xam ba jàng li nga xamante ne nii moom la doomi soxna yi war a jàng lépp nag ginnaaw ba nag nee nañu waaye juróom ci boppam dafa dénkaane woon ne maanaam nañ ko moo bindoon ab leetar ne maanaam nañ ko yóbbu ci Serigne Touba. mu joxe boppam comme ni ko kilifa yi defee woon ci jamono jëpp ci jamono jooja ndax comme ni ma ko waxee woon booba lépp lu waay bëgg ci lu baax ci Sëriñ Tuubaa rek nga ko mën a amee ndax booba moo yërmande yàlla ci kaw suuf loola nag nee nañu fekk fi way juram fekk na mu génn àddina waaye nee nañu da koo dénkaane woon bind ab leetar nemaanam nañ ko ko ca yóbbul bañ ko fa yóbboo nag ma nga fekk Sëñ Tuubaa ci njaareem ndax loola 1913 la loola 1913 moom la mi ngi fekk Sëñ Tuubaa ci njaareem ndax Sëñ Tuubaa ku nekk xam na ne 1912 ci la ñëw njaareem ba ba 27 eh, nee nañu nag ba Sëñ Tuubaa ñëwee njaareem ba ca déwén sa la fa ñëw ba mu fa ñëwee nag ci la jébbalu ci moom ci xisa bu xaw a gudd waaye dañ koy tënk rek bi mu jébbaloo ci moom nag Sëñ Tuubaa bi muy nekk njaareem ci résidence surveillance bi daaw téye kenn ku ñëw day am kum lay booleel tayit maanaam kam lay booleel day nekk koo xamante ni nii dangeen a amee ak mbokkoo da ngeen a amee ak mbokkoo moo tax mu boole koo eh, kilifa gu tedd ga waliyu kamaal wa ka nga xam ne moo jubook boroomam muy Cheikh Mouhamadul faadal moom la ko Serigne tubaa boole ndax ku nekk xam na ne soxna Awa Bousso euh, mbokkum Serigne moor la ndax ku nekk ndax xam nañ ne Mati Sànqe moo dem ñangeen am fa ku ñuy wax ummu këlsoom ñang ummu këlsoom ñang moomu moo jur soxna Awa Bousso kon ginnaaw bi ñu bokkee ci côté Serigne Touba gi dañoo bokkeewaat ci côté way juróom wu jigéen muy soxna Awa Bousso moo tax Serigne Touba ku doy waar la ku yéeme la waaye tamit loolu day wane ne moom ku xamoon ak mbokk la teewu tamit li muy jeex ci boroomam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewul mi ngi doon bàyyi xel maanaam ak mbokk mbokk gi ñi nga xamante ne nii ñoo ñoo ñoom la ko yàlla booleel te mu gën leen waaye mënu leen a génn nag loolu Sëriñ Tuubaa xamoon na ko tey sàmmoon na ko bu baax xam nañ ci lu bare bare bari waaw kon Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Fadal la ko booleel waaye nee nañu eh, dafa wax ne daf koo wax ne ko bu demee Tuubaa maanaam bu météo dara lu dul jàngale alxuraan loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax alxuraan faw moom ñu ñëw ci tuuti wax ci waxi suñ boroom ak waxi sëriñ bi ndax moom mooy lépp moom moom alxuraanul karim moom la ñuy suñ boroom wax nañu mooy seen tedd nga bu ngeen bëggee tedd bu leen ko wuti fenn dem leen ci alxuraan dem leen ci alquran ngeen wuti ko fa ba mu ko waxee nag dafa mel ne ñi mu doon wax dañ koy weddi mu ne leen li ma li ma wax noonu la noonu la demee de noonu la demee de fu ngeen dem di ko fu wutee jiri du ngeen ko am ndax aaya bi ni mu ko tëggee ñi jàng xilmul balaaxa xam nañ mu ci wax wa innahu la zikrun laka wa li qawmik wa sawfa tusaluun bi maanaa wa innahu la sarafun laka wa li kon alquran mooy tedd nga mooy suñu tedd nga moom la suñ boroom wax te suñ boroom moo bind mbindéef yi moom leen xam li leen di jariñ tey ak ëllëg kon tedd nga kenn mënu koo jëlee feneen fu dul alquran mu wëlbati ko wax wax wax ñu ne ñu te jàpp leen ci sama téere bii te ngeen mooy ci bu dëgër a dëgër ndax kat bu ngeen ci jàppee seeni mbir dana jub foofu nag day am ñu ne maanaam eh, xablullaahi boobu mu tudd day am ñu ne diine la diine lay firi boo demee ci téere tafsir day am ñu ne diine lay firi am ñu ne jëmmi alquran la waaye benn la ndax diine dafa dugg ci biir alquran alxuraan dafa ëmbaale diine moo tax mu ne waxtasi mu bi xablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci buumug yàlla gi muy alxuraan na ngeen ci ngoy bu dëgër ndax bu ngeen ci ngoyee seen mbir yëpp dana jub lépp lu ngeen bëgg da ngeen ko am mi nga xamante ne bii ñun mooy suñu bunt ci sëriñ Touba ndax suñu wayjuru tedd wa nga xam ne moo fi jiitu ci ak njabootam muy sëriñ Ousmane moo ñu nettali nañu bi mu dajalee njaboot gi indi leen ci cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Alaaji mii mi ngi teew cheikh Mouhamadul Fadal moo wax sëriñ Moor ne ko njaboot gi yow lañu la boo leen booleel seen ngërëm ci yow mooy seen ngërëm ci sëriñ Touba mu daan ne sëriñ sëñ Ousmane sëñ Alaaji mii ak. bàyyi sëriñ ak ñi ci des ñëpp na ngeen topp ci ginnaaw sëñ Ousmane moo tax sëriñ Ousmane ku fi mas nekkal sëriñ Touba di ab xalifaam mu ànd ak yow di liggéeyal euh, sëriñ Touba ci yow ba ni mu fa bàyyi ko loolu ñu bari teewe nañ ko kon ñun sëriñ Mor moom mooy suñu bunt ci sëriñ Touba radiyallahu taala anhu te Cheikh Mohamed Al Fadal ci làmbiñam la jóge te Cheikh Mohamed Al Fadal mooy sëriñ Touba kon ndigalul sëriñ Touba lañu ci am ci liggéeyal sëriñ Mor radiyallahu anhu waaye ñu ànd ko ak suñuy kilifa ci coordinateuru liggéey bi nga xam ne moom la ci sëriñ Alaaji jiital muy sëriñ Mor mi ñu dippee way juram sëriñ Mor Anta ànd ko ak sëriñ Mouhamadul Moustapha ak sëriñ Abdou Lahad ak mbooleem ñi nekk ci biir coordination bi euh, sëñ Amdi tamit topp ci ak liggéey bu rafet bi nga xamante ne bii ñoom njaboot gi yëpp ànd nañ ko ndax sëriñ Mor yàlla da koo defal tawféex tawféex ji moo di njabootam yëpp ak i sëtam ak i koo ci fekk moroom ja rek dafa def boppam ni moroomam ba léegi nii lu ñu gëj a gëj a gisee rek kenn ku nekk ak moroomam mën nañoo bokk benn néeg bu ñu fanaan mën nañoo bokk yenn yére yu ñuy sol. amuñu kii kii mooy kii kii mooy kii amu ci njabootu Serigne Mor Sànq loolu yàlla defal na ko ci tawféex ju rëy rëy rëy bu ñu amee xew sax am tudd wala xew wala ngénte bu ñu agsee bu ñu fay kenn ku nekk day yëkkati alalam def ci sama tudd mii bi ñu koy tudd am na ñoo xam ne dañoo waxaale nag wi ne deux cent nangam mii lañu fay kenn génn ci poosam fay nag wi mi ngi ci jataay bi toog xëy na du bëgg ma tudd turam kon ñoom ñëpp dañoo jàppe seen bopp benn amuñu ñaar amul ñett foo fekk njabootuk sëriñ Cheikh rek ak njabootuk sëriñ Ousmane rek ñëpp benn lañu amuñu biir amuñu biti ñëpp benn bopp lañu kenn kuy xebetal sa moroom dara amut loolu amut ci biir njaboot gi loolu Cheikh Mouhamad al Fadal radiyallahu anhu mooy sëñ Touba moo ko defal sëriñ Mor moo tax njabootam yëpp nag ñu ngi sant ndax téere bi yàlla bi la yàlla jaarale ci moom moom sëriñ moor ba noppi mu amee ko ci ndigalul Serigne Touba ba yàlla defal ko ci ay sëtam jigéen ñi sax gone yu jigéen ñi sax ñu ngi mokkal alxuraan am na ñu toog ci jataay bi ñu ngi nii toog am ci ñoo xam ne sax ñu ngi beqi téereb yàlla bi te mokkal nañ téereb yàlla bi loolu lépp yàlla mu ngi koy continuer di ko defal moom sëriñ Mor yàlla na nu yàlla taas ci barkeem ak ndimbalam te yàlla defal na ko ci taw feex ndax taw tawféex ji mooy eh, ci juddug yonente bi alayhi salaatu salaam ak màggal ko ak ñaanal ko moom ci la moom sëriñ Mor ci la génn àddina ñu di ko fàttaliku waaye nag ñuy rendre hommage yonente bi aleyhi ndax ku ne xam na ni bu ñu jotee ci alxuraan ji sëriñ Mor am ndam ba di ci liggéeyal yàlla liggéeyu yàlla bu toll nii ci ndigalul sëriñ tuubaa ba ñu ëpp ci sëti sëriñ Touba yi sëriñ moor Anta Sali Sànq moo leen jàngal téereb yàlla bi kon loolu tawféex ju rëy la joo xam ne ñi ngi ciy sant yàlla te yàlla mi ngi ko ko defal ñuy rendre hommage yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais di ko ci rendre hommage kon loolu lu rëy la lu kawe la moom sëriñ moor loolu la ko yàlla defal ñuy mettit lu mbooleem njabootug sëriñ Mor Sànqe euh, caricature bi nga xam ne doon nañ ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam rawatina nag ñu agsi ci bisu juddoom bii yonente bi ñun mooy suñu lépp kon bu ñu demee ba gis ni ñenn ci nooni lislaam yi ñi ngi xeex yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ñaawal ko wala gaaral ab deram walla wax ci moom lu ñaaw loolu njabootuk sëriñ Mor Anta Sali sànq gépp ñu ngi koy naqarlu te loolu responsabilité kilifa yi ci réew mi yépp la loolu ku mel ni président de la république war naa mën a jóg àddu ci loolu parce que bi bërki démb bi ñu ne am na ñu dee ci ndox mi bind na benn message envoyé ko ne mi ngi metti lu loolu di jaale ñi nga xam ne ñoo ko def mais bu ñu tuddee yonente bi wax ci moom ab safaan moom président de la république Macky Sall am na ci responsabilité bu rëy boo xam ne war naa jóg naqarlu ko mbooleem kuy kilifa ci réew mi tamit war ngaa jóg naqarlu ko comme ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha naqarloo moom it yàlla na ko fi yàlla yàggalte te wéral ko kon ñi ngi koy ñaawlu muy jëf ju ñaaw joo ne danañ ko ñaawlu ci suñu xel ñaawlu ko ci suñu xol naqarlu ko ci suñuy jëf ci wane ak ci lépp danañ ko def moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon daal njabootuk sëriñ Mor ñi ngi mettitlu jëf jooju jëf jooju ñi ngi koy mettitlu waaye ku ne xam na ni journée bi journée religieuse la maanaam dañuy fàttaliku nit ku baax kon war nañu wax ci lu bari ci loo xamante ne bii lu naqari askan wi la kon ñu ànd ko ak ñoom wane ne tamit ñu nit loolu lu ñu naqari la mooy daal waa France googu noonu caricature boobu ñu def yonente bi alayhi salaatu wasalaam njabootuk sëriñ Mor ci bis bii ñu koy fàttaliku ci alquran ak sunna ñi ngi koy mettitlu di ñaan yàlla mu musal ñu ci noone lislaam yooyu musal ci yonente bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam kon daal loolu bokkoon na ci li nga xamante ne bii message la boo xam ne danañu ko jàllale ci bis bi kon nag comme ni ko sëriñ Alaaji waxee rek mooy njaboot gi yëpp ñu àndandoo rek nekk benn di yëkkatee ndoo di dóorandoo sëriñ Mor bi ñu demee ci kilifa yi nekk tuubaay yépp ñu nett li ñu ci ci moom dañoo wax ne sëriñ Mor day yàlla defal na ko tawféex joo xam ne mbiram ku ci jàpp dana dem ku ci jàpput tamit dana dem te lépp lu ñu ko mas a defal nag mu ngi dem te yàlla lépp lu ñu ci def yàlla da koy yombalal am na ci yoo xam ne boo ko aajowoo sax ba di ko xalaat di ci am am tiit da ngay toog rek mu fekk la sa kaw te loolu barke dëgg na te yàlla defal na ko sëriñ moor Anta Sali sànq moo tax Baye Laaji mi ngi sant ñëpp waaye di wax njaboot gi ne leen rek ñu gën a jàppoo doon benn te téye mbirum sëriñ Mor mii kenn ku nekk ku la mag ci kër sëñ moor nga jàppe ko muy sa sëriñ ndax sëriñ Mor ñun mooy suñu sëriñ ndax Cheikh Mouhamadal Fadal moo ne ñu seen ngërëm ci moom mooy seen ngërëm ci sëriñ Touba moo tax gone yi toog sax ñi ci gën a tuuti. su ma leen xool rek jëmmi sëriñ Mor Anta seli laa leen xoolee ndax samay sëriñ laa leen jàppee kon loolu moo tax ñu di ko fàttaliku eh, bis bi nag suñu laaj mi ngi sant ñëpp comme ni ko sëriñ Mor waxee rawatina dëkkandoo yi ah, ku mel ni suñ tedd juuf jàmbaar la lool macha allah ci bis bi ndax eh, këram yëpp macha allah ci lañ yandu suba ba ngoon di fa berndeel gan ñi taxawaay bu rafet bépp ñu def ko fa kon ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu